dafa am benn arab boo xamante ne dafa dégg arab moom arab la dégg ba mu toogee di wax ba mu toogee ci benn majlis ñuy wax mbiru lëwaat ni mu garaawee maanaam góor a góor ni mu garaawee bay nettali nag xawmu luutin bañ koy def la leen yàlla teg ci ay daan mu ne leen ndax yonente ba nu mu tuddoo ñu ne ko luut la tuddoo mu ne ko moo gën a bon parce que tudd dara la dul luut kon moom dafa gis ne bi maanaa jëf boobu noonu moom luut dafa tuddee boppam noonu déedéet firul loolu moom luutin la tuddoo mu ngi jóge ci kalimatu laata laata mooy raax parce que naa Ibrahima dafa amoon métier muy tabax parce loolu la doon def wala bàyyam loolu la doon liggéey mooy di tabax ay xerem loolu loolu la ko jàngal ne ko pour muy tabax ay xerem Seydina Ibrahima bañ du tabax xerem moom muy tabax ay nii mooy ni mu tabax kaaba ji lootin moo doon raax di ànd ak moom parce que mbokkam la woon Seydina Luut ak Seydina Ibrahima ñoo bokkam benn jamono ay mbokk lañu woon fa amana lahu luutun wa qaala inni muhajirun la baat bi jógee mooy raax kon ñoo doon liggéey ci métier boobu la loolu waaye tey jii nag kuy def jëf jooju ci luxa arabiya dañ koy askanee ca moom ñe luutiyun noonu lañ noonu lañ koy waxee bu fekkee ne jëf bi ñu tuddee ko liwaatu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ku ngeen gis mu di koy def rey leen ko ku ngeen gis mu di koy def rey leen ko mu ne nag Seydina Luutu ñëwoon na ñu war ci bàyyi xel lan moo tax ci sooratu woykat bii yàlla di ci tudd mu tudd fii liwaat parce que dafay cité ay yonente lan moo tax mu cité yonente bii mooy Seydina Luutu parce que dafa bëri ci ñoom dama ci Michael Jackson loolu lañ ko tëjoon kaso loolu lañ ko jàpp jàppal xale yi mu ko doon def xale yi ñoo ko doon nettali de doon wax nañ dafa doon parce que dafa wax dafa bëgg xale waaye ndikki de bu tëddee xale yi loolu lay jël xale yu bari wax nañ ne loolu moom lool la doon def ak ñoom moom may kat jàpp du moom kese woykat yu bari bari loolu la def moo tax yàlla cité ko fii nii danañu taxaw nii di woy nii rek waaye bu ñu paree ci suuf dañuy def yàlla nañu yàlla musal ci seen jëf moo tax mu ne weddi na qawmu luutin al mursalina is ba nga xamante ne qaala lahum wax naa ñoom luutun yonente yàlla luut ala tattaquuna te yi am yàlla te bàyyi seen caaxaan bi inni nee na man lakum ñee leen rasulun yonente laa aminun yonente bu wóor al amaan baat bi yàlla def ci insister toujours pour woon la ne gis nga musique boo koy déglu na du am ci yow déedéet borom moom alalu papaam fu mu ko gis dina ko sàcc du ubbi armoire yaayam bi ubbi armoire papaam lu nekk parce que boîte bi yi dorog bi dugg yamba bi dugg àndandoor yu bon yi dugg fan lay mujjee dana sàcc dana fen dana def njaaloo dana yab baayam dana yab yaayam boo moytu mu yéeg sa feneen niveau mooy ne yàlla amul danay dund ni rek surtout ñi nga xamante ñoo ci fanatique ci xey musique lañu def guddi musique lañu ñuy def bëccëg dañuy dem ba di njëmati dara waat ñu tous dara lañu dul jëm moo tax yàlla indi kalimatu amana kon inni man rasulun yonente ya, la waaye aminu bo xamante du ma yàq seen alal du ma yàq seen jaboot tey jii ni woykat bu yóbbee sa doom muy ànd ak di fecc la nga ca gëna sentu la nga ca gën a séentu da nga gis na kuy wax naa nag yóbbu naa ci sama baay màkka yóbbu naa ci sama yaay màkka inna la yu ayidu hada dina bi rajulin fajirin yenente bi nee na nit dana jóg dem aji jara dana jóg dem aji yëkkati tànkam ne labbayka yàlla ne ko laa labbayka wala sa'dayka laa labbayka wala sa'dayka zaaduka haramun li nga indi nii di koy passé daganul kon ko ajee lu daganul yàlla nanguwul aj ba bu yóbboo nga aj junnee ak yoon waaye yàlla nanguwul li yàlla di nangu mooy dërëm bu lew nga jóg dem aje ko bu jar a bàyyi yàlla di fesal baat bii ci ñoom mooy al mooy al amaana du yàq sa njaboot du yàq sa alal du yàq sa dëkk mu wuuteeg ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñooy shuhara yi dañuy yàq rek danañ yàq sa njaboot danañ yàq sa alal danañ yàq sa lépp fattaqullaha ragal leen yàlla te bàyyi lii ngeen di def wa atiuni te topp ma man lootu bàyyi leen lii ngeen di def bàyyi leen lii ngeen di def wa atiuni te mel ni man mel leen ni man waaw moo tax ñun ñu war a mel ni Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ma asalukum laajuma leen alayhi ci ci lii ma leen di woo min ajrin payoor kon yonent du laaj payoor in ajriya sama pay illa ala rabbil alamina ci yàlla rek la teg keroog wax nañ ko fi jujju ko rek dagan na nit di jàngale en tant que alquran bi di fayee ko wala di noddu en tant que allahu akbar di fayee ko wala muy imam en tant que di jàng alquran di fayee ko ndax loolu dagan na ñu ne dagan na ci hukumu charia dagan man damay wax ni ci jamono bii sax moo gën lay faral di ci jamono bii noddukat bi nay feyeeku nay feyeeku parce que il faut mu am këram te war a dundal këram war a dundal njabootam léegi bu fekkee ne feyeekuwul fu mu koy jëlee mooy indi daji kees yi ne bilaal ba moo lekk kees ñu jiñ ko sàcc kon nay fayeeku mu am lu lew comme du dem fenn tax na bu mënta dem fenn tisibaar mu war a noddu takkusaan mu war a noddu timis mu war a noddu heure bu nekk mu ngi ci jumaay kon mën na fayeeku mu mën a am ci lu mu jàppale ko fi nga ko jële mooy Seydina Omar yonente bi moo doon diriger fayeeku Seydina Aboubacar ñoo nekk xalifa fayeeku waaye Seydina Omar bi mu faloo def leen ne ah problème nag am na yonente bi dafa doon waaj ak xiif loolu xam nañ ko tëdd wala yéen man na ko mun yéen te mën na am ñeent fukki guddi yoo xamante ne du lekk du naan dara du ko ci fekk Omar def ko seen Omar manu ko kon yonente bi mën na muñ loolu parce bu ñu laajee dërëmam rek ni ko alquran waxee in yasalkumuha yufikum wa tabxalu wa yuxrija adxaanakum yàlla nee na Seydina Omar bu leen laajee seen alal boo moytul ngeen xoñoon ci kawam parce laaj alal yombul de moo tax jigéen buy laaj ci dépasse façon bu nekk dina ko def parce que li ko waral mooy laaj alal laaj xaalis kooku dafa yomb yonte bi nag moo tax mu ne ko yow bu leen laaj dara Seydina Omar bi mu faloo def leen ne damay xëy ci yéen di gont ci yéen di fanaan ci yéen te dama amee njaboot fi mu nekk nag il faut mu seet solution boo xamante ne ci laay boobu di dundee parce que bu ma demee ca marché ba wala ma dem goraani wala ma dem liggéey da ngeen di ñëw soxla ma te du ngeen ma mën a jot moo far bàyyi loolu yëpp di leen di régler seen problème kon il faut moo am loo xamante ne moom ngeen di bugg di teg ci sama loxo Seydina Ali na ko wax nga dégg bu boobaa nag bés bu nekk da ngay génnee benn dërëm la benn diinaar ci baytul maal bi pour yow lay bugg di dépense yow ak sa njaboot bu ko passé nag mu ne kon bismilla loolu moom doy na kon Seydina Omar moo njëkk a fayeeku te en tant que doon xalifa Abu Bakr fayeeku Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa waaye situation moo tax moo tax tey jii nii yi man nañ di fayeeku ñu di leen di boo demee ci Arabie Saoudite dañ leen di fay ñu di leen Kuwait dañ leen di fay imaam itam yonente bi di doon fayeeku Abu Bakr itam di doon fayeeku waaye Omar bi nekkoon imaam en tant que donc chef d'état dafa doon fayeeku mooy li ma la wax ni kon imaam bi mën na di fayeeku moo tax boo demee ñoom sudee si de leen di jox solde yi ministère maanaam bu ñu compté ministère ñoom noonu la leen di compté ñu naan ñaari pale rek na ca man sudee si assuré macha allah booy romb ji bi dem fee dem ni loolu dara nekk ko ci imaam na feyeeku ñu di koy fay e soldo mu mën a am ci lu mu fego mën am lu mu sago bu boobaa du ñu déggati kees ba daji nañ ko gis nga ko yooyu doo ko déggati parce que bëri na yow dañoo ne imaam xaalis ba dañ doon cotiser te fekk dañ ko indil facture kiram war a couper courant amul lu mu joxe mu xool xool gisul dara lu dul keesu jumaa mu jël si ne xaaral ma joxe tuuti far situation bi far ja jagadi la ñu ñëw ko kon imam man na fayé ko dara nekk ci ñu dikoy fay ci sonn loolu dara nekk ci islam may la ko katu alquran suba ngon bu dégg ci xam nga ki jàngale alquran du dem fen dafa melni comme ki garde kas ci kaso moom même temps dafa walé kasso parce que du dem fenn kiy jàngale itam ta dem fen bu xé ngay xalé bu ngone mo ngay xalé bu mo ngay xalé kon mu mëna def man ta dem ci biti man ta def ci toolam man ta dem fenn te nit la il faut mu dund yonente xiif lañ ko fajee woon moom mi dafa mën a dëkk ci xiif te am ay soxla wala de war am yeneen ak yeneen am na fi doom am na fi soxna kon mën nañ di koy fay mën nañ di koy fay kon ci jamono bii gis nañ ne daal ñiy jàngale mën nañ fayeeku bilaal yi mën nañu fayeeku imaam yi mën nañu fee ko mm. te moo gën sax mm. te moo gën parce que léegoo-léeg ci jamono fii ñu toll mm. lu nit ñi dul dul financé dugal ci seen alal duñ koy jox respect waaye lu cher ci ñoom moom lañuy ñuy jox respect gis nga bu njëkk li tax xale doon yelwaan te mu indi problème bu rëy ci seen réew mi doñ ko condamné nag parce que man ta ñàkk dama dem ci aéroport dubai ak li ñu bari bari alal ma gis kees bu ñu bind di tabarwaat ma ne yi ngeen ponkale ni di yelwaat léegi sëriñ ñen ya nekk ca digg àll ba amuñu tous ngeen ne yel yelwaat yëpp yelwaat la ma toog ci biir avion bi ma gis kuy romb ma nga tey benn ngise ngise bu rafet nag moo tax suñu yos yi nag ngise bu rafet ñu ngi ca bind ne boo buggee def dara nga def fi dara lii dañ koy jàppale ñi nga xam ñoom ñoo ñàkk doole ci adduna bi ci avion boo xamante ni mu ngay def imaraat ak li ñu am ci alal ma xool kii yelwaan ni mu ni mu mel ni mu solo ak ni mu taaroo ñàkkul tus léegi kii taxaw fii ñàkkul dara di yelwaan léegi ka nekk ci àll ba fee amul tus ñu ne du yelwaan li ñu footu rek te dama ko mos a wax ci benn daje ma ne gis nga suñu yelwaan bii mooy wane ne àdduna tasagu parce que yéen de wax na ci xaddis ne bu àdduna di tukki ne gis doo gis kuy yelwaan kon fekk yaa ngi gis yelwaankat ci mbedd mooy wane ne kon àdduna tasagul dalal pour wax la rek ne ñiy jël seen doom yi di leen di wala ñiy jël seen taalib di leen di yelwaan loo mm. xam nga dañuy fekku dara folofu day doon jàngale nekk ci téere yi nii xam nga sëriñ Saalum Saalum yi doon dem ci téere di jàngal mm. duñ doon feeku dañuy obligé xale bi ñu ne ko demal yelwaan lay ñëw ñu jëm ci def xelaat mooy xale bi li mu indi parce que mu indee fukk juróomi dërëm yi kii indi fukk kii indi fukk bu boolee yooyu mën na ci togg loo xam ne mën nañ ko lekk la des mu def ci keesam bu ko defee bu amee facture wala bu amee ordonnance ak yooyu mu fee ci la ko sëriñ doon defee sëriñ daara yi bokk te boo demoon ci koñ boo dem rek mu am benn bu fa nekk di jàngale alquran ndeysaan boo amee sarax booy génnee ci kii bi parce que léegoo da nga gis nga xamante ne na man dama am problème bu génnee sarax parce que koñ bi fii amuma ko ma ko yenn yenn yi ci Ndakaar boo génnee sarax il faut nga dox sori Europe nag xaw ma foo koy gisee léegi nag bu ko defee nag ñooñu nekkoon ci koñ yooyu doon jàngale boo amee sarax booy génnee nga joxe ko fa parce que da ngay gis yenn quartier yoo xamante ne bu leen yàlla baalalul rek boo moytul mu alag leen dañuy desal bon lem boo xam ne nit mën na koo lekk waaye dafa sedd ñu génn si amuñu kuñ ko sax ñu këpp ko ci bu fekkee ne nag xale yi taalibee am na ñu nekk ca koñ boobu dañ koy obligé yóbbu ko foofu amu ci tiyaabu moom ñee seen biir feesu ci loolu dafa bon kon baax na waaye nag ci jamono bi ñu toll comme dem nañu ba lu nekk ñu di leen koy tuumaan kon mën na jël organisation yu bees yi mooy samp sa daara tabax ko ba mu baax wala yow ci sa bopp nga am foo loué comme li xew ci teeru bi Dakar rek bari na bu ko defee ngay fayee ko koy jàngal alquran mu di lay fay xale bi du yelwaani du dem fenn comme yelwaan ngay bañ jàng alquran lay def parce que léegoo léeg yelwaan dana tax du mën a jàng njàngam du normal mm. léegoo léeg du ko matale ni nga ko buggee parce que yelwaan bi il faut waaye buy feyeeku amuloo beneen liggéey lu dul jàngal ko bu jógee am na lu ko lu ko fi xaar pour mu nekki añ reer am na fu muy fanaan si facture yëpp yépp teew na boobaa nag baax na kon boobu moo gën ci jamono moo tax tey jii nii en tant que taalibe dama koy faral di wax boo jógee léegi bu la neexee nga dem samp sa daara jël ay taalibe ñuy jàng nga di leen di jàngal alquran bu set bu rafet wëlbateku nag di fayeeku seenu parents ñuy fay parce que fay ba du dara lu dul lan nañu gàddu seen doom man duma la gàddul sa doom loolu man duma la gàddul sa doom yow yaay gàddul sa bopp sa doom ci parce que teel la ko di la koy jàngalal gàddul la ko ba bu la neexee nga ñëw jëlaat ko sama loxo déedéet yow gàddul ko sa bopp nga di koy dundal loolu mooy indi peyor boobu noonu kon ci jamono bi dara nekku ci nit dem def noonu mooy dem samp walla am foo xamante ne dañ fay loué mm-hmm. ca teelu ba imma Kaolack imma Mbour imma Dakar même bu dee ca Europe sax boo defee nag centre boobu nga teg ko moo xam ñoo xam dañuy dañuy jël si ay leçons bu ñëwee nag di participer nga xam ñu bugg di fay nga xam yow ci sa bopp ci loo man ti jàpp loo xamante ne man nga caa sutur la woo nga xamante ne doo sàcc doo fen doo def loo xamante ne du noonu kon lii yonente wax nañ ko waaye en tant que l'islam ak diinu yusru borom xam-xam yi d'accord nañ ne en tant que xam-xam mën na di fayeeku di jàngale di fayeeku di noddu di fayeeku di jiite di fayeeku li yonente doon def mën nga ko def tey jii nii tey fayee ko nekku ci yonente bi ñaata yoon la nit ñëw ci moom ne ko sama bot bi dafa lukkeeku mu ñaanal ko mu delluwaat da ko fee am na ku ñëw ci moom tànk baa damu te ñu ngi nekk ci digg jihaad bi ci digg jihaad bi ca Badar ba ñuy commencé jihaad bi rek mu daanu rek tànk bi damm ku koy toppatoo ku koy lijjanti parce que ku koy toppatoo rek yow doo mën a nekk ci xeet ñu indil ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu ko ko indilee teg ko ci wetam ñoo ñu delluwaat ca xeex ba xamul naka lay def mu jël loxoom bi teg ko ca ne bismillah tànk bi wéraat ci saasa waa ji jóg taxaw keroog la tànkam boobu ñu dam mën na jóge ci kaw garab ci pellu ci suuf te tànk bi di dam daf ko jot sallallahu alayhi wa sallam feeku na ko keroog ay nit ñëw ci moom ne ko ñun de dañ am problème barke parce que dañ tukki woon ba ñu jéggee ca dëkk ba ñu ñaan leen ndox mayuñu ñu ñaan leen reer mayuñu fu ñu fanaan sax mayuñu ñu fanaan ci mbedd bi ñu toog ba ci guddi ñu indil ñu benn waa joo xam ne ñu ne mooy borom dëkk ba ne na jaan moo ko matt ñu bëgg koo yóbbu fu nekk nag ñu ne ah am na ñu nekk fii te ngeen seet mën naa am ku fay faj nee na benn ngóor si dal di jóg bañ ko indilee ne ko ndax amu leen koy faj ku jaan matt mu tëb ne man mën naa ko ñi foog ne leneen lay def waaji ji ñëw ñu teg ko ci kanam muy jàng fatiha di uf ba muy juróom-ñaari fatiha waa ji jóg mu ne ma bihi kalabatu mel ni dara mosu koo jox mu wër ca saas gaay yi génnee gët génn wàllu gët mooy fukki nag ak juróom jox ko fukki nag ak juróom jox ko pour fayee ko gaay yi ne kon acca boo xaar lañu ñu pati boo ñu commencé di lekk mu ne leen xaar la ñu laaj yonente léegi nag loolu lañ yëg fi nag di leen laaj yaa rasulallah ndax loolu ñu jox ñu parce que waa ji faj kay jaan bi matt ndax dagan na mu lekk ko parce que mosuñ nga def ko ndax dagan na yonente bi ne leen dagan na lekk leen te ngeen indil ma sama wàññi wadir bu lii bi sax ba muy def yooyu waaye kii feyeeku na ko kon tey jii nii mën na dagan en tant que yonente jii mu tudd fii kenn feyeekuwul waaye yow tey jii nii nga ñëw nekk imam ne ah da nga may ma nekk fii samay facture ñëw mooy xalaat fan laa koy fayee ma bi nga ne imam bi léegi dafay tardé dara nekk dagan ah dégguma dégguma mu ne sunna la sunna la mu ne ndax weexal dagan la sunna la parce que daf ko ñaanal jël faatee ñaanal mën na ñëw ci ne ah, man de sama bopp moom di di nga ne ko jox ma ñetti junni boobu yooyu moo gën yooyu moo gën te ñoo ngi doon wax dara dara nekk ci kon loolu ñuy tuddee daal <laughs> wéexal boo xoolee ci xadis bi lu wéral la parce que kii loolu la def kon dara nekku ci ci chariatul islam l'islam may na ko même su fekkee ne yonente defu ko kon boo ko defulee moo gën en tant que imam fiyee kuuloo dara moo gën en tant que jàngalekat fiyee kuuloo dara moo gën waaye nag boo fiyee ko itam l'islam may na ko loolu mooy wax bi kon yonente bi ne وما أسألكم لاجم لنا عليه تليم لن خمل من أجر بن بيور إن أجر سما بيور إلا على رب العالمين يلا رك ما ما نفي ده لما لن جه منو لن ما كوفي كل جنجال بن حرف القرآن ده من كوفي أنا عبد من علمني حرفا سيدنا علي لأن كما جنجال بن حرف سجامنا إن شاء أتكو إن شاء باع كن بمعنى ما نكوفي كولا جانغال بن سارو القران ما نوكو فاي ميم بو ييكيتي 1 مليون تيكو تي لوخام سا فيغو فيغلو باسكو رك مو خام تياو باتي نيك مكو كو مانا ان اجري الا على رب العالمين قساتونا ندخ دي نين دي نيوال الذكران غوريا من العالمين تلي يالا بين باي جيجين دم تي استفهام توبيخي laaju leen pour xas waaye def leen di laaj pour xase leen ataatuna ndax da ngeen di ñëwal ak zukuraan di sëy ak góor ñi minal aalamiina ci li yàlla bind seetu leen benn jigéen du dul góor comme yow ngay dem sëy ak moom wa tazaruuna di bàyyi maa xalaqa lakum li mu leen bindal rabbukum seen borom min azwaajikum ci seenu soxna yi soxna tiyaabu ba ca nekk ak ci nga mën a sax yëgee sa bopp parce que moo wuuteeg yow moo am lu nekkul ci yow wala de ak ni yàlla bindee jigéen mboolem bokk bi ci suuf yëpp fitna la boo bàyyi sa xel rek bu yóbbaale la lépp ma taaru lépp ma rafet lépp ma baax ak jigéen ni ko yàlla bindee yàlla nee na loolu yëpp pour yéen la nga bàyyi ko fa dem ci seeti góor bal yéen daal antum da ngeen nekk ñoo xamante ne xawmul da ngeen nekk ñoo xamante ne àdduna da ngeen upp day da ngeen day mu ne li tax mu ne aaduna fii mooy yemuñ sax ci góor ñi góor ak góor waaye même bu ñu demee ci seen jigéen ñi dañuy bàyyi place bi ñuy seeyee dem ci suuf fi ñuy xabine xam nga ci jamono bari na ñoo xamante ne loolu la ñuy def yal na ci yàlla musal te yëpp benn la sallallahu alayhi wa def ko xaraama def ko tere kenn du dem ci soxna jaaree ko ci suuf ci farj bi rek na mën a jaar loolu lañ wax te am na koo xamante ne dañ koy nettal dafa dem di am problème ak jëkkëram jëkkër ji du ko tuddati faaleetu ko buy wax ak moom du waxtaanati ak moom wëlbati ko daal mu jaaxal ko mu def lu nekk solu na maquillé na lettu na xeeñu la neexal na baat lu nekk def na ko jëkkër ji ne kën rek tax fu mu tax benn bés mu ne ko nijaay dama bëgg ñu waxtaan fii mm. fii Sénégal mu ne ko dama bëgg waxtaan boromam dèjà mu ngi koy wax ni foog ne moom ndaw si moo doon nettali ne mu ngi koy nettali pour ne moom réussir na defar sa yow te fekk xamul xamul ne mu ngi def musiba mu woo jëkkër ji ne ko dama bëgg ñu waxtaan fan yëpp boobu ba léegi da nga chargé léegi dama bëgg ñu wax ma lan la loo bëgg defal la jëkkër ji di nopp mu topp ko rek di koy neexale ba jëkkër ji ne ko ma wax la ko mu ne waaw mu ko ma wax la mu ne ko waaw mu ne ko fi ñuy séyee ni mooy faral bi foofu génnalu ma ci suuf moom ma génn problème loolu la mu ndaw si que xamul ne dafa xaram mu nangu ko def ko moom ba di koy wax loolu la doon def ba ko loolu Dakar ci laa kon bi maanaam am na jigéen ñi koy dund sax te xamuñu ko am na góor yoo xamante ne loolu moo leen loolu feebar la nag parce que en tant que góor rab yi sax duñ ko rek xaj bu góor dañ mos nga gis muy topp xaj bu góor mhm. man lay topp bu jigéen bi rek. moo tax yàlla nee na balhum adallu in hum illa kal balhum adallu nee na rab yi sax ñoo leen tane kii def góor ak góor jigéen ak jigéen am na moo la tuddee si xaq jigéen ak jigéen góor ak góor da ngay gis jigéen ak jigéen ñoom ñaar ñu ne ñoom ñooy sëy léegi bu ñu demee nag adopté doo man xaw ma kan mooy jëkkër xaw ma kan mooy jabar xaw ma kuy baay xaw ma kuy yaay dañu benn environnement bi dañ ko benn moo tax mënul ne. ña koy def dañu feebar feebar dëgg la nag parce que sa baay ak sa yaay bu ñu defoon ni yow dem takk góor yow doo judd te yàlla nag def ñu bind def góor jigéen pour la pour ñi xamante ay doom ba safiha rijala kasira wa nisaan loolu la yàlla ba muy wax ne bind naa leen min nafsin wahida wa xalaqa minha zawjaha nee na ma génne ca soxna wa bassa minhuma ci laa génne rijalan kasira kon tey jii ne bés bu ñu arrêté loolu góor yi ak góor yi di séeré jigéen jigéen di séeré fan la doom di sosoo moo tax même ñi koy def sax caacaay lay doon waaye sax xam nañu ne lii moom normal normal moo tax naa lootin waxe ñoom noonu kii kenn mënu koo xam saxool di seen anta atuna sukuraan ndax da ngeen di ñëw di seen ak góor ñi mina la alamin ci li yàlla bind ci mbindaafoon wa tazaru na bàyyi fa ñukku ما خلق لكم أزواجكم لن يلا بيننا من أزواجكم أي جيجين جيت باي لنفوا أم نفوا يا تها ولا يبناتي كنا أتها ولا بعدين بعدين سما لين سما دومي بس لين لين تبغى غراب لأن تبين أن يكوي ده دل لين دري يعني يكوي ده فقتل الفاعل والمفعول به لو ما يأتم تشاري دل لين ورا ري تيجي نك مي خاجان كريم ديوانه وجدني ديوانه وجي جي جي جزورنا لي ñu xam leen fi te li gën a mooy boo ciy wax ñu ne la gis nga ko la ña ña ñuy jëflanteel ay kilifa lañ te mënoo ko weddi parce que ña koy daganal bi di ko yóbbu ci tribunal yi di ko ci assemblée di ko koy daganal ay ay kilifa loolu yëpp nag xam nga lan moo koy jur ci xolu nit musique feebar boobu feebar boobu musique moo koy jur ci xolu nit moo tax musique baaxul li muy génne ci nit dafa bëri façon xeetu mbon bu nekk lay ci biir xol bi dafa mel ni rek loo xamante ne dafa fekk mu yëkkati dafa mel ni safara nga jël ko upp ko boo ko uppee dafay gën a bëri musique lu mu fekk ci yow koy gën a élevé daf koy gën a yëkkati yàlla ci yàlla sax moo tax mu ne bal antum qawmun aaduuna dem ngeen sax ba ci seen soxna yi sax kuy ànd ak soxnaa soxnaam farju bi soxlawu ko dafay bàyyi farju ba ne ko dem ci suuf sëñ Lalla Dine yéen a jéggi dayoo. fan la ko xamee nit waroo dund ak say ñi ngay waxal te xamuloo leen loolu ñu xamee ci da ngay gis koo xamante ni dafay wax naa ne il faut ma dem ci baar ba il faut ma dem ci boîte de nuit ba non sax bu ma commencé dem dugg wax bu ne pour mën a xam la fa ne ah, ma ne ko déedéet mu ne dañ ko gis ci baar gis ko ci ci ci boîte de nuit bañ ko koy wax mu ne comme mu ustaas la nee na dafay waaraate ci rajo yi. dafay dem pour xam na nekk ci biir boîte ah. demuñu gànnaar waaye xam nañ ne gëléem gëléem yëpp a njool jarul ngay dem bi gànnaar di xool ndax gëléem njool na wala njool ñëpp xam nañ ko lay xew ca boîte kay xam nañ dem nga fa demuloo fa xam nga la fay xew jarul jarul kenn dina koy nett kon Seydina Lootin bi yonente la woon jëf yu bon yi defa ko waaye dafa xamoon ay nitam moo tax en tant en tant que borom xam-xam fexeel bi nga xam ñi ngay waxal parce que bo xamul ki ngay waxal mano yegg ak mom gom boko ko mano mënoo ko faj Seydina Luutin jëful yii waaye xam na foofu la ci lan lañuy dund xolal kuy dund ci bir néegam ak soxnam sa xamna na dund xamna na ñom likité dañuy bayyi fardiya di dem ci sen soxna kalu ñu tontu ko même tontu bi ngay degg ci jamono ci xalé yi nga xamanteni ñom ñoo def biréer la lam tantahi nee na boo wul lii nga ñuy wax yaa luutu yow lutu kon respecté wuñu ko kañoo taxaw ci kanam borom xam bu di fecc ci kanamam ne xoola xam nga kooku respecté wu borom borom fay dem ba ñàkk da fay wal xol baaxul moo tax ba yaa luutu yow luutu boo bàyyiwul lii nga ñuy wax def lu ba nekk du ko wax. léegi fi nekk nii la aaya wax ci gannaaw in hada illa xulukul awalina xam nga fi naa ko dem ne xuluku mooy fen waaye sax man nga ko firee jikko ba tey ji mu fasir yi ne yéen nii mën nga ko firee sax ñu njëkk ñi la tey ji ne booy jëmate dañu wax ne yow ànduloo ak jamono ànduloo ak jamono yow jamono bi def la bi passé waaye lan mooy lii xew boos bi tey jii nii mooy lii ak lii lii ak lii musique yi rek foog ak caankati moo tax ñu ne ko yàlla wut boo bàyyiwul yii lii nga ñuy wax kon jën nañu ñu baax ñi def leen ñu bon def nañ ñu baax ñi def leen ñuy ñu bon jën ñu bon ñi nag tey jii nii def leen ñu baax parce que di def lu bon ne kenn du ko wax yow may def lu bon yow may def lu baax yow yaay ku yées ki comme ni mu xewee ci luuti mooy xew léegi ci jamono moo tax mu ne ko boo bàyyiwul lii nga ñuy wax di ñuy tere lu bon lii la takku nan na danga bokk minal muxrajin dana la génne dëkk nekkul nag génne ak say bagage sànni dé dé ku ñu genné won dëkk ba dañ doon dag nopo ñoo non la doon ñu ku ñu doon génne dëkk dañ doon jël nopo bi dag ko baaraam yi baaraam yi ci gudd ñu jékkoon dag ko yemalé ko ak ba ca gëna a non la doon genné ñu ci dëkk wala toroxal ko bu ko défé nak ñepp kenn du leen ñëmé fat parce que dañuy xamné ki dañ ko genné ci réew xam nga loolu ñu koy def ba ji ci jamono. Usaama defoon nañ ko dekk sa dekk rew ci sa dekk re ñew na yow moy sakul jinsiya moy tay jini sénégalais fi nga juddo waye amna na loo def wala jubóoloo président bi mu jël re ne yow do fi rew am démocratie mënu ñu waye waaye Usaama moom lañ ko defoon ci Arabie Saoudite dañ dekk re ne ki dekkatu Arabie Saoudite mo tax mën na ko on dellu si parce que amatu ko kay amatu fa tous bu jëlon tay ji avion passeport am dara baaxatul parce que décret moo jógoon ci buur ba ne kii dëkkatu fi ñu ne mboq rek moo taxoon mu dem dëkk fi ca eh, mu dem man de dem Maroc ñoo ñu ngi koy wut man de dem ñoo ñu ngi koy wut mu far dem Afghanistan fee ca àll ba loolu ba am na ñu ci réew mooy buñ la rek jël sa passeport jël sa dandité jël sa kayit ne yow nag dekkoo fi léegi nag tey jii booy dox tey jii te amuloo benn passeport amuloo benn dandité amuloo benn kayit te lépp tey jii nii kayit moo koy génne. boo ñëwee jël si wari lu koy génne boo demee retail di retirer gis nga ko ci Western Union lu koy def wala de pièce mooy def lépp tey jii ci jamono moo tax Ablaye Wade bi ñu koy woowee mu ne nañ jël bulletin yi lakk ko ñu ne ko ay moo gën a tudd li ñuy liggéeyee suñu quartier yi voté dem voté ji yóbbaale sa dentité moo gën a tudd ñun li ñuy liggéey suñu dentité nga ne Ablaye Wade dañ suñu dentité te moom moomu jëlul daal di dem lakk ko ne yéen lakk leen yéen moo tax ngeen dox bi am yoo xamante ne xàq la kon bi maanaa tey jii nii bés boo demee ba amatuloo kayit parce que lépp ci kayit la bés boo amul kayit nii sax boo demee ba pour ñu laal la dañuy xamal ko yaay kan sa identité ñu man boo amulee loolu duñ la mën kon lépp ci kayit lay dox mm. léegi nag kuñ ko def koo fen def ko Sénégal def ko Gambie def ko fenn ku amul kayit tey jii noonu la mel moo tax ku dem tukki ba tam réer wala yu mel noonu mu gis mu problème du mën a tey du mën a tey def daal loolu nag lañ ko wax ne ko boo bàyyiwul say yi dinañ la génne suñu dëkk xaala mu ne leen inni man ne li amalikum li ngeen di liggéey nii minal xaalina bañ naa ko torop mooy adaaful iman iman ak moom fa Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam nee na mhm. man raa minkum munkaran ku gis lu bon falyughayyirhu bi yadihi na ko dindee loxoom fa in lam yastati fa bi lisaanihi na wax bi mu dëj fa in lam yastati fa bi qalbihi bu ko mënulee na ko bañ ci xolam mu ne wa zaaka adaaful iman ay laysa hunaka imanun baado noonu nga ko bañee noonu te mënoo koo mënoo ci wax mënoo koo dindi nga bañ ko rek ngéma nga fa waaye nag moo gën bés boo demee nga ne bañatuloo ko nag ngeen nekkatu gis lu bon te bañuloo ko ci sa xol bi terewuloo ko waxoo ci ngeen nekkatu fa seetlu ko nag ci jamono seetlu ko ci jamono est-ce que ngeen bareeti na ko tey jii ne dangay gis koo xamante ne lu bon a ngi ni ñemewul fesal ne lii neexu ko parce que dafay wax naan bu ko defee ñu nangu ko dafay am sa ci kilifa du ñemee wax ci yenn tamit parce que bu ci waxee rek ñu ngàpp bu far nopp waruloo ko bañ parce que li ko waral mooy ne yeneen yi bañ ko buggee bañ yàlla def leen tegu kon il faut nga mënoo dem ba ñëpp kontaan ci yow loolu mënul ne kon il faut ngay wax dëgg boo gisee lu woon dindi ko boo ko mënulee wax ci boo ko mënulee bañ ko ci sa biir xol bi waaye boo demee nag ba d'accord ca mbon googu bu boobaa tiyaabu bakkaar bañ koy bindal moom lañ lay bindal yonent bi sama wax na ko ci hadis nee na man radiya bil maasiyati ku nangu bakkaar bu ñu def nga kontaan ci masalan ñu ñëw wax la ne diw sangam dafa am gis nga ko dafa sàcc ñu jàpp koy bokkam ah pour la ñu duggee jàpp nañ ko bàyyi waay dara nekku ci am nga ci bakkaar bakkaaru ko sàcc lañ bind parce que d'accord nga ci sàcc la noonu dorog noonu jigéen bu ëmb ñu ñëw di la ko nga ne ah loolu dara nekku ci jamono moo demee noonu nakaru la ci sa biir xol bi bakkaar bu lañ lay bindal bakkaar ku def loolu parce que radita bi tilkal maasiya ba hmm. tax Seydina Lootin taxaw ne li amalikum min al qalbi Seydina Muhammad taxawoon ca Makka ne li ngeen di def nag d'accordu ma ci Seydina Ibrahima taxaw ca digg Namru ca dëkk Namru mooy Iraq tey jii nii baat mu ne leen innahum aduwwun li illaa rabbil kon tey jii nii tam amal fayda gu rëy moo xam borom xam ak loo mën fekk ngi ma ngi ci yow nga ne lii neexuma lii neexuma parce que neexul yàlla. kon oh, lu neexul yalla bu ko jema neexal sa xol bu ci set am koy rus am koy kersa am koy dab ba neexam hmm. dede lu baaxul moom kenn du ci d'accord hmm. hmm. rabbi yo sama borom na jini ma musal wa ahli ak sama njabot ni maa yaamalu jar na ñaan bo dem bi asaman di taw ndox bu boba pour nga mucc ci jafe na de la wor yépp mbon la légui lila wor yep mbon la fofu ñaan mo la mëna a motax mom dafa utiliser ñaan waye itam yaraale sa njabot xam ci ngay dëkk yi tam motax bëreb yo xamantene xam nga ne mëna ko yar sa njabot jógal nga dem ak daal waaye nag ñaan mom baax na ci ci jamono bi gis nga tay ji ni man nga di dund mom sa kër nek xalé bu bor sa kër kenn ñu mo fa def lu la neex kenn du fa fecc kenn du fa dugal yàmba kenn du fa tukh kenn du fa def lu bon sa kër nga téye ko en responsabilité nga toog tuuti sa doom màgg bu góor walla bu jigéen sa doom bu laa wax de bu góor walla bu jigéen ba mu romb laag cigarette doo ci man nga dóor mu dem ñëwaat téyewaat walla nga ñëw di dóor mu téye la puus la fe doo ci man que sa njaboot ñu ñëw di koy def ci sa biir kër da ngay wëlbatiku sa kër loolu yëpp dafay am wala muy indi ay xaritam yoo xamante ne yàmbaa bi ci sa biir kër gi lañ koy tuxe wala nga tombe ci tegal la doom bu tooy xëpp boo xamante ne sa doom bu jigéen a ko jur te xamu fan la ko juree na ngeen def loo ci mën da koy dàq moo tax ci jamono bi il faut ngay ñaan yàlla musal la ci liy xew parce que pour mucc ci lu jafe la yo bo ci mutti en tant que yo personnellement defulo sa njabot man nañ ko def te sa njabot yow lañ bokk te dégg imam si yalla geel a feel mune amna ben na benn dafa ñaanu yalla sax bu mu am do amna chir bo xamantene dafa ñaanu yalla bu mu am do parce que ci jamono bi nii boo amee doom yalla yàlla dee xanaa gis-gisam la waye li ci am solo moy bo amé do dal yalla ko rabbi najini wa ahli mimma ya'malu yaron na nak be ñaari domam yu jigen ya nangul ko waye pourtant amona na ku ko nangulu ci biir moy soxna soxna nanguwuloon dafa bañoon ba tëdd ci suuf comme pour wala ne nit man na jéem baxal njabootam am ñu ko ci tef li desom bu rëy la ci jamono da ngay gis nit ku bax ku yiw ku yewel ku sel gis doomam am na mu mel bu la yàlla jàppale nga ne bu baxon doomam yi bax wala ku fekkone baxon na doomam yi duñ mel ni wala kii lan la def yàlla ba yàlla di koy fiyee nii ci doomam ah ah nit mën na baax fi mu baax fa mbaax yem doomam ñoo gën a yées ña gën a yées ana nuuhi nuuhi dafa def yàlla dara defu ko tus te jaamam bu sell la yàlla ko tàgg waaye doomam ba baaxul Seydina Luut dafa bon dafa def yàlla dara te jabaram baaxul luumin sax doomam baaxul jabaram baaxul ñaar la boole moom ñaar la boole doomam baaxul jabaram baaxul loolu firiwul ne dafa am lu mu def yàlla di dit nit mën na baax waaye njabootam ñëw mais neen neneen nu bokkul ak moom ni mu buggee kon du ayib waaye nag dee ñaan nag tey yar ñaar yi moom il faut nga dafay def ci jamono bi il faut ngay ñaan yàlla defaral la sa njaboot ñu ko waxee xam la naa min azwaajina ñaareel ba deen yar sa njaboot jiitu leen te la ca gën a gaaw nag gën caa baax nag mooy nga dugalee ci alxuraan parce que dina ñëw ci kanam bu dee musique yi ñoom ñoo yàq xol yi alxuraan mooy defar xol yi lan la yente wax nee na xale yuy jàng alxuraan dafay fay meru yàlla mu ne xol ba gën ca xol ya mooy xol bi baax jiitu inna xayral xulub maa lam yasbiq ilayhi char xale bu nekk xale bu ndaw nga di koy jàngal alxuraan bu magee mën na jox lu yenn yi bu baax a baax waaye xale boo xamante ne dañ koo dugal ci caaxaan def ko ci mbon ba mu màgg ca moo tax boroom kër yi ñay indi seen seen musique seen seen am musique indi ko ci kër ga di koy taal muy mbala mbali mooy élèves ya du sabotage nag waaye lii am na la wax ni danay am ci yenn yenn taalibe yi yoo xamante ne dañuy dem waaye du doon taalibe sax bu nekk ca daara taalibe bu jógee ca daara loolu moom du ko ñëw waaye élèves yi dañuy gis ne loolu dara parce que ñoom noonu ñuy dund moo tax ci jamono fexeel nga yar sa njaboot même su fekkee ne français lay jàng sax fexeel nga di koy yar yar njaboot ci jamono bi lu am solo la parce que li ko waral mooy mbon dafa lembe fu nekk foo yaakaarul da nga ko fa fekk yàlla nañ ci yàlla musal da ngay jóg da ngay gis ku jóg daw ba ca àll ba dem làkku ji foofu noonu pour mën a sooy boppam ak njabootam mbon fekk si ko ay nit jóge fee indil ko seeni doom yu mel noonu ne yaral ma ko yu mel noonu ñoo ñu indaale lu bon ñoo bàyyi ko fa moo tax den bàyyi xel góor gi dinaa ko doon gis am koo xam dafa indi doomam ci daara ji mu ne ko déedéet na parce que nemmeeku na ni kii man bu ñëwee fii dem fi bàyyi mbon loolu da ci bàyyi xel am nag xale yoo xam ne danañu ñëw def si vacance balaa ñuy dem ba moytu rek ñu neen fa seen jikko yu bon moo tax yow en tant que itam daara bu fekkee ni yaa ngi liggéey ci daara yéen ñi bu ko di naw am na benn xale boo xamante ne loolu laa ko kii woon mu ñibbi dafa ñëwoon vacance ma toog ci ndéng ba rek dégg ko muy woy woykat yëpp muy topp seen woy rek di kii cëppalante bi daa toog du koy dégg boo gisee mu parce que balaay dem xale yëpp dana leen mokkal woy balaay dem xale yooyu noonu parce que loolu la ñu xam fàq bu nekk la ca nekk rek moo cay xeeñ loolu moo nekk ci moom nag loolu yëpp foog mu xeeñ yàlla nañu yàlla musal kon moo tax mu ne rabb yow sama borom najj ni musal wa ahli man ak sama njaboot mim maa ci li nga xamante ne yaa amalu na la ñuy liggéey moo tax doo ko dégg këram ma sowe ko wa ahlaw ak njabootam ajmaay na yàlla ne na ne soxna sa bokkul ci njabootam inna ibni moo dégg bari na koo xamante ne yaa ngi koy askane ni diw sangama ko jur juru ko